fulaan wu fulaan astar bul def star sa sa turandoog star yi la gëne si montagne yi lay dox di naan jumule jumule jumule moo tax mu monte papa si montagne yi Guinée yi si gorot yi eh, loolu la yaay ki ñëwoon gannoo doon naa ne mi ngi wari kam a xaalis ah. yow xooma mandikat nga fi luwe xooma gees maan nga fi luwe mandikat sànq ñuus naa ko ba mu duum waaw fee lañ toog mu ne duñ toog fee pour la mandikat yi eh, eh, mandikat yi kay dëkkul fii mandikat dëkkul fii déedéet yow ma sax ci loxo moom xanaa dafa góor a seeti mandikat kon a fii séeréer yi laa fi duwe mandikat la de papa baa leen fen gis nga àdduna Yes. No, no, hata hata. Kan no do na ne ko jaro. Ata ndinga fe ba ko ni wero ko. Yo ya nyo ya. Yo ko ma dan nyo ya. Ko ma dan nyo bi yo han na fi la la uta le fe. Le do lo de kuma ba che lo ko. Kan yo fo ro na ne. Ah. E mo hoyo. Ule, ule. Billahi wallahi do do gajal. Na ta mi da. Eh. Mo yo. Kamu yo mun gandam tadi. Kamu sa tadi dengan kat dogal tey moom Dema cool ndax Dema. eh yaa may gaañ yow. eh. papa yi sama yaay. ah sama yi. eh. oui. eh yaa may gaañ Samba. ah it koy it koy demandé. baba alam alam jëndee. ba. eh bu ray bu ray xale yi. eh eh na ngeen gore rek. tabax tabax yow ñëwaat nga. di ku ko tooñ di ma lan ma ne rek te sama nii point. yow ya, ya nii kan. ah ah déedéet man daal dafa feebar. feebar la day maan yi nga du ni. subhanallah. eh eh eh. mooy tu ma door de. sa di mel ni yow ya, sol ne nga mandu la la wax gis nga ku amul ngok da ngay moytu eh dama bu nga mandu ci eh, sama mbir la la wax eh, sokko waxe man di ma ñàpp sax damay bu lo dooral la bu lo dooral damay bu lo dooral damay gëdd sax eh ma ta kay maa kay xam nga li sabaru xaajam ala xeer dire man di waxtaan fi lan ne ah. man de fii laa koy teg gis nga eh, boo ko laalee rek nga laal sama xol. yow eh séeréer bi eh yow moo moo ñu. ñu si mi ngi ne. waaw ndax yaa nga yokk yow indil ma ndox yokk lu ah. ndax mu ngi ma may tuuti ma. papa ni nga ne si man ngay mel ni fol fol nii. eh da ngaa ma wax eh. ni ñuulal. déedéet am la wax ngay mel ni tomate. sa paay mooy wane ne këriñ. waa eh. ñu doon nañu ko bëgg a war seesee tam astaan. day day génn man maa génn kër gi ma. déedéet. pardon di nga saga. ne ñun ñëpp fi de. wallaay billaay ma wax ma ko. yéen da ngeen yaakaar ne yéen kese am bopp. xanaa la. da ngeen yaakaar ne yéen am bopp. yo moom moo kër gi kër gi ñoo. barki Fapes laa la waatal nii gis nga mbiñ bii dinaa fi woon nit ba mu ba mu ba barki Roog seen laa la waatal ah, nii. yaay billahi yow na nga yokk luwaas. say couleur yu bëri. yow moom da ngay yokk ah oh yow comme yow da ngay yokk luwaas ku ne da ngay yokk yaay na ko xanam a foofu déedéet. ne nga kon tamum kay tanna ma hare kay mu jogi tigas ke ken leom tigas ke re yaru kay yoy wa sere ni nu nu do ba no ado ba no do ne mu dira ba nu fi e, te ka suma yo te ka ko re jinne kay mu jo mu do fu nya fi sa won na ne ah. do mi khara ko an ne ta ne ay dan ya no ya, ga nya fi sa won na ne yow la ngay seetaane ñuy door sa jabar ya nga naan a ñàpp instant bi kay. léegi kii na. bàyyi ko fii na. waaw. Gamou. waaw ah. ndogu fa ni dama fodu. ndogu fana fana fana. ndogu fa ni no a dama fodu. yow eh waxal olof mun naa ñëw ñëw ñëw. sooy yëkkati ci laa wax ndogu fa ni dama fodu. fana fana fana ndogu fana. ma jox ko ndogu heure fekk kay waa ko daj. fa ndogu fa ni. fa tuuti maa ne fa. fa ndogu fa hmm? ni. ñu ko bëri. gisee di ndogu fa ni boo i ñaam.